rahmatullah mbokk internet dañ koy bàyyi mu daal di nuyoo bisimilah sëriñ bi waaw salaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi nuyu ñëpp ñu nga xam ne ñu ngi suivre seen bi di Baramyane TV di leen dokkeel di leen ñaanal yàlla di leen baalu àq si weeru koor gi di leen baal di ñaan yàlla boole ñu jéggal nangul ñu lépp luñ ko jaamu jéggal ñu suñu mbooleel rëcc rëcc si barki Baay yàlla bi. macha allah Adiya Baye lan nga ñuy nuyoo eh, mbokki internet yi.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 من جودي ما أجس الحديدا من الهلوم ومن الأرساق فضلا ومن معاشن الأخلاق أسأله بالله ورحماني وبالمهيمن وبالمنان لا تتنا وخيري في الأمر فلا أرم منة للخير إني هو بيد لخني ولي أرجو لي وكل من يوالي هو العزيز خير سليل وهو الكريم الواهب الجميل حروم لأحباب كل يسر فلتكسن يا ربي كل عسر لا دار فر ولا يسلط عليهم أحدا يا من يخزط رفعتهم فضلا بذكرك العظيم فهنيم تران بفضلك الحميم حميتهم عن ذكر كل خير فاملا قلوبهم بكل سر ملكهم ديارا واموالا ونجني واتي من خالا حقهم وجوههم لدينك القويم ومدافهم بفلك الجسيم نلهم واشدهم بقدر صدق كل مريد وبقدر شوقي إني أريد منك بلوى تهلم إني أريد بعد بلوى ترم لك ومنك ثم فيك كلما طلبته وأنت تلكما رجعت أنني رجعت منك بكل ما سألت إليك حسن خواتم الأولى ولولنا واتنا مفات الأولين يا من يجيب دعوة المرسلين ما نعم ممشنا من دور مصليا على نبي المصطفى وآله مصلي مصطفى اللهم صل على سيدنا محمد فاتما لما والقاتم لما سبق ناصر أقبل أقوال ديلا صراطك المستقيم على aliha qadrin qadalin azim amin yaa allah comme ni ngeen ko gisee ndaanaan la ci biir ndaanaan yi eh, Adiya Baye lan moo waral Adiya Baye waaw ñu nuyuwaat beneen yoon salaamaaleykum di wax ne eh, sunu tur Abdoulaye Guèye la mhm. waaye dañoo gis Baye bayitam bi muy wax ne jël na léppam jël na njabootam doomam yeeg taalibeem yëpp jox ko yonent bi addiya ah, te moom waxoon nañu ne da haram na sax pour ñu top ndok ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme nam ko waxe won jangal leen ma seen yoolu salatu fi ma jangal leen salatu ba ci pay bi ndax salatu bo mom rek moko mëna jang a jàng ñun nag am mënuñu adiyal yoon jotu ñu seen pour adiyal ko waye dañuy jël suñu lepp rek jox ko mom maulana Mawlana Ibrahim ndax fim ñu jëlé ak fim ñu indi moo tax ñu jël suñu bop dal def ko adiya maulana Cheikh Ibrahim macha allah jërëjëf mm-hmm. solo adiya bàyyi ñi gis la ngay yëngu ci zikar lan mo la booleeg zikar waaw zikar mën nañ ne dañ see dañ see juddu dañ see dañ see màgg dañ see yaru ndax dañoo juddu fekk waajur yi ñëpp nekk ay taalibe macha allah ñu fekk leen tamit ñu nekk ay tuddukati yàlla boo xoolee mën nañ ne formation bi si biir kër gi lañ njëkkee d'abord après ñu ñëw di gis nag ay zikarkat yoo xam ne xëy na ñoom ñoo ñuy gën a tegaat si yoon eh, ku si mel ni eh, Cheikh Baye Diouf Eh, moom it géwélu Baye. def na si joué na si rôle bu bëri. Mm-hmm. aussi Baye Moussa Diagne al Ousmane moom it joué na si rôle bu bari mm-hmm. eh, ak eh, c'est Ousmane Cissé moom it. Mm-hmm. macha allah ndax jamono bi muy ñëw géej waaye suñu kër daan ñu teetee si lu bari si si kar loolu moo ñu gën a poussé sax ñu tegu si yoon bi daal nga xam ne opté nañ pour nekk zikarkat. macha allah yal na yàlla jàppale leen si ndax zikar yemb na ndax yomb na. waaw zikar yomb na yombul. Mm. jaamu yàlla la daal te jaamu yàlla yaakaar naa amul benn boo xam ne ànd na ànd naag noflaay waaw jaamu yàlla yëpp moo moo moo am na ay am na ay gàllankoor waaye ñun xooluñ si loolu ñun avantage bi la ñuy gën a xool daal ndax li yàlla wax si tudd tudd tudd yàlla tudd yàlla waaw tuddkat yàlla te tudd yàlla day dalal xol bu sa xol dalee rek kon doo gis yeneen jalaal yi si am waaye yow jamaale da ngay gis ndeysaan allah ñu bëggoon xam Adiya Baye ginnaaw bi nga déggee si faydu fan nga kan mooy sa wasila ci faydu waaw man ñu ngi si ron Baye Modou Gueye mm-hmm. eh, muqaddamu Baye Ousmane Dieng Sala mm-hmm. eh, muy daari bi nga xam ne muy tudd Miftahul Wusul ila hadrati rasul di al Ousmane yoon mm-hmm. waaye ñun ñu ngi fii eh, si géej géejawaay si ginnaaw Baye Modou si li nga xam ne moom mooy bustaanu arifina lépp si al Ousmane yoon la waaw foofu lañu jokk foofu lañ nekk daal incha allah koy ziar bu baax Baye Modou Gueye di ziare waale sangam boobu di Maulana Baye Ousmane Dieng di ko ñaanal fan mu gudd ak wér yaram addiya naka ngay dundee ak koor gi. gi comme ni ko ni ko jullit yëpp di di di dundee rek waaw koor gi moom ñun daanaka mun nañ ne duñu sonal daal si bu baax ndax xëy na tur yàlla la ñuy dundee. Mm-hmm. bu doon ñu sant sekk wala ñu sant jaww mën na leen a sonal. Euh, noonu daal lañ koy dundee dañuy woor comme faratale si ñun mhm. dañ koy def euh, ba ilaa macha ndax jaamu yàlla bokk na si li xam ne moom mooy konki lislaam yi euh, ginnaaw seede baat yi julli juróom woor weeru koor asaka aji màkka si buñ ko mënee daal weeru koor lañ tombeel si lañ nekk nii mhm. ñu def profité occasion di baaluwaante ak ñëpp di ziar tamit suñu sëriñ Maolana Baye Ousmane Dieng mhm. di ziar Baye moo di ziar mboolem al Ousmane Euh, Baabul Xadra Baay Aliou ñu ñoom Baay Demba Si ñëpp ku lim dangay ngay juum mhm. ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen ziar di leen ndokkeel aussi di leen wàcce seen wàccuwaay noonu daal la ñuy dundee koor gi. macha allah ah. tontu bi leer na ndax euh, nekk ci biir weeru koor di zikar yomb na. <laughs> waaw yomb na yombul ndax xiif di zikar moom. <laughs> yombul de <laughs> mais boo euh, boo xiifee sax ngay gën a mën a boo boo boo reggee. Ah parce que biir bu feesee. mun na xam nga si kar bu jógee si kii maanaam fekkee sa biir dafa plein mun na la tere tudd yàlla daal bu baax waaw mais boo xiifee tamit yenn xiif yi des fois <laughs> bu fekkee avant koor gi da daan lekk di naan lu bëri mhm. mooy tax boo nekkee si biir koor gi da lay sonal loolu da lay manqué waaw incha allah macha mm. allah euh, beneen question bi Adiya Baye euh, à part zikar ci lan ngay yëngu à zikar si lan laay yëngu mhm. bon maa ngi yëngu si euh, commerce en business. Mm-hmm. di yëngu si jënd ak jaay si loolu laa nekk. Mm-hmm. waaw si jënd ak jaay bon bu fekkee ne nag euh, te damay des fois damay tukki damay dem bitim réew su ma nee maa ngi si yeneen liggéey waaw si loolu daal lañ nekk waaye bu ne fii ñu ngi senegal moom. Mm-hmm. ñu yëngu si wàllu jënd ak jaay waaw jënd ak jaay daal si li ñuy yëngatu macha allah. comme dem da tukki. Eh, ndax dem foofu eh, dem boo demee bitim réew ndax di ngay gis eh, ay programme yi nga xamante ne di nga ko war a zikkar wala waaw foofu aussi xëy na du mel comme fii. ni programme yi amee ndax foofu temps amul. Mm-hmm. yenn jours yi la ñuy faral di gisee lu ci ëpp àjjuma la sax lay doon mooy comme xadara juma mbokk taalibe yi dajee mm-hmm. ñu def xadara ñu paree ñu zikkar après waxtaan ñaanalante yàlla. Mm-hmm. maanaam mun na ne semaine bi daal benn jour boobu lay doon des fois ñu am ay programme yu ñuy def comme euh, benn doom baay war fa ñëw comme ku si mel ni Cheikh Baba Lamine wala Cheikh Abdou Malick ñun fekkante fa ak mboolem njabootu baay yi nga xam ne ñu ngi fa ñu ngi jëmmal tamit li xam ne fay di nuyu aussi waa Ansaaru Diin Paris euh, si président bi ak ñëpp zikarkat yi fa nekk ñoom Moussa Thiongaan Barham demee moom jeex ñu ñëpp ñu ngi leen nuyu di leen ndokkeel bu baax mm-hmm. incha allah daal lañ fa nekkee macha ñu ngi lay ndokkeel bu baax a baax si tontu bi solo Abdoulaye Zakir ñu gisoon ne Adiya Baye ñu gisoon ne euh, musoon nga ñu may festival ñu jég saa gisatuñu festival bi Abdoulaye Zakir lan lay xaar pour mayaat ñu festival bi waaw festival bi ma mujjee def li tax gisul leen ko dama fi nekkul woon dama dama voyagé woon mm-hmm. daaw bi ma fi fekkee def naa ko mais euh, programme laa ko def nii rek def moo mooy anniversaire sama anniversaire la doon tombeel mm-hmm. mooy 11 juin bi. Mhm. ma def ko programme boo xam ne Cheikh Ousmane Niass moo ko taxawee macha allah ak ñoom Baye Modou Gueye Cheikh Abdoulaye Niass. Mhm. Euh, loolu lañ ko doon jëmmal pour wane ne xam nga festival préparation bi dafa xaw dafa xaw a métti. Mhm. ñu ne daal nañ ko def programme comme ni ñu ko daan defee. su beneen yoon ñu gën a euh, defarwaat gën a préparer euh, pour mun ko def festival incha allah yaakaar nañ dina ñëwaat waaw comme ni ñu ko daan defee macha allah. macha allah Mm-hmm. am na solo euh, suñu question bu si topp bëggoon xam lan mooy njëriñ lan mooy njëriñu koor lan mooy njëriñu koor waaw njëriñu koor euh, yàlla moo ñu digal euh, ñu woor te woor boobu mu ñu digal mm-hmm. maanaam boo xoolee yàlla digaluñu dara loo xam ne daf ñu ko digal nii pour hasard lépp loo gis ne pour suñu suñu suñu wér-gi-yaram la mm-hmm. waaye suñu yokkule suñu yokkutee la tamit na nekk na weer boo xam ne weeru promotion la bokk na weer bi nga xam ne si la li nga xam ne moom mooy euh, suñu référence mooy suñu symbole ñun ñëpp jullit yi mooy alxuraan karim si la wàcce mm-hmm. euh, weer boobu noonu weeru ngëneel la weer boobu weeru weeru euh, nangu ñaan la weeru sarax la te dañ ko xaaj si ñetti pàcc yi mm-hmm. ñu ne fukki fan yu njëkk yi ah, yërmande la mm-hmm. yeneen fukki fan yi yi si ñu ne njëgal la yeneen fukki fan yu si ñu ne goreel la si li nga xam ne moom mooy safara te jaamu yàlla bu nekk loolu ngay ñaan yaa ngi ñaan yàlla yàlla dugal ajana waaye ñaa yaa ngi ñaan yàlla yàlla musal la si li nga xam ne moom mooy safara doyoon na rek ñu ne yàlla moom mooñu ko digal sans benn condition ñu def ko ndax dañuy jaamu yàlla ngir yàlla mhm. da ngay jaamu yàlla ngir dara booy jaamu yàlla ngir ajana wala ngay jaamu yàlla ngir ragal safara mhm. te yàlla nee na la lépp lu ma bind dina jeex ba mu sama jëmm ji kon bu ñuy sàkku rek nañ sàkku jëmm yàlla ñi kon dañ ne dëgg-dëgg koor googu daal mhm. bàyyi moom moo ñu ko moo ñu ko jàngal ndax eh, sunu sa loxo bi bu si def wala sa sa sa bët yi bu si xool lu nekkul yàlla sa mhm. lamiñ bu si wax lu nekkul yàlla sa gémmiñ gi bu si dugal lu nekkul yàlla mhm. kon koor googu Mawlana Cheikh Ibrahima moom moo ñu ko jàngal waaye dëgg-dëgg kooru zahir googu moom moo lay tegtale kooru baatin am na loo xam ne daanaka du waxi eh, écran waaye dëgg-dëgg bàyyi def na si ñun loo xam ne nii bu ñu nekkee si koor ñun xam nañ ne dëgg-dëgg ñu ngi si koor waaye dañuy àndandoor a jaamu yàlla yi nekk si koor gi rek ñoom buñ dogee wari ñun ñu kon ne sunu koor daa ñun koor goo xam ne nekk koor daay man lay doon <laughs> waaw macha allah ñu ngi lay euh, ci ñenn ñi ma ko sañ a wax ñu gis ne koor bu nee suba la koor wala ginnaaw suba la koor gars yi dañuy def lu nga xamante ni moom la ñuy tuddee tëj saison tëj saison maanaam dem ci dem si place yi dem si baar yi pour gën a kii daal pour tëj saison wu foo pour jëm ci koor ndax euh, loolu noonu yow la ci sa xalaat waaw xam am na loo xam ne du du diine du aada mm-hmm. xay na ñi koy def ñoom mënuñ am fenn fu ñu ko sukkandikoo mm-hmm. parce que si weer boo xam ne ni yaa ngi naan weeru ja weeru boo xam ne boo si defee benn yàlla ful ko def ko fukk boo si defee fukk mu def ko téeméer nga def téeméer mu def ko junne kon danga war a profité lépp si préparation bi la nekkul ne weer bi kese lañ war a màggal mais préparation weer weer yëpp baax weer yëpp weer yàlla la weer yëpp mooy weer yu baaxee comme nga nekk si ay caaxaan ba weer koor war a ñëw ñu ne suba la weeru koor nga ne xaaral ma dem tëji saison maam def nekkee fa loo xam ne neexul yàlla pare bëgg a duggaat si weeru koor yi ne yaa ngi def lu lu neex yàlla ah, loolu loolu nekkulu li nga xam ne diine la maam da ko da koo dàq loolu duñ si sax bëgg a sori parce que bu fekkoon ne si loo xam lu jëm si diine la man pour man man sama tëju saison mooy lan mooy comme ñu ne weeru koor baa ngi war a ñëw ñu organiser benn daara boo xam ne retrouvailles lay doon ñëpp dajee fa tudd yàlla ba xool yi tàng ñu eh, dem dem koor koor tëj saison daal moom mooy weer bi feeñ na ñu dem naafi la première naafi la man si si ma gis-gis man loolu mooy tëj saison si man waaye nag leneen loo xam ne àdduna la wala topp sa bakkan moom loolu moom wax dëgg yàlla daal rafetluñ ko ñun xamuñu ko sax ndax mosuñu ko def. macha allah macha allah Abdoulaye Zakir ñu ngi lay dokkeel bu baax euh, ci tontu bi tey nag euh, dañ fay am produit bu nga xamante ne euh, moo ñu gunge mu tudd Ousfa Juice muy produit bu nga xam jus bu nga xamante ne bu naturel la fii la ñu ko defaree ci Sénégal koor gi dafa sell lu ñuy lekk lekk dafa war a doon lu nga xamante ne lu sell la te jus bi dafa sell léegi ku bëgg ku si bëgg rek mun nga woote ci 728. 60 71 wala 76 420 13 20 13 20 22 du ñu def loolu xam naa dinañ ci jox suñu invité euh, Abdoulaye Zakir ma xool xool tànnal bu la neex <laughs> ci jus yi su ko defee nga dem jox ko madame. damay jël ji buy wi rek. ji buy war a mën xam nga lu baax de <laughs> macha allah kon sooy dem la da ngay daal di yóbbul euh, madame su ko defee boo ndogoo ba pare rek daal si daal di daal si kii xewlu. macha allah Abdoulaye Zakir ñu bàyyi la nga zikaral allah allah baay allah allah allah allah allah barhama allah allah allah allah allah kalam gu jëkk gaag nagam lu teey la maandu ga tabe ga kokoy barama wa innaka laala xulliqin azimu yàlla ko njëkk a tagg kokoy barama wa innaka laa tahdi ila siraatin mustaqima yàlla ko jiitalal boppam kokoy barama الله الله باي الله الله باي الله الله يس الله الله الله الله ألف صلاتي مع سلامي على الحبيب سيد الكياني حمدا لربي حمدا لربي على لقائي aw farasi min silawani barhama géej la ñun de si lañ naane saabal allah barhamu barhama géej la jeng sala nandal nañu si jeng sala bayo ki mooy waayu jeng sala bay jarama bay boy yow yaa ñu indiloo jamaa bu foor bi Cerno Alsan Géej la jeng saala nandal nañu si ala la baay ala barhamu Cerno Alsan tukulóoru baay bi ala barhamu ala barhamu ala ala baay ala ala baay ala ala baay Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah baaya baax ba ku ko bëgg baax Allah Allah baay Allah Allahu Allah Allah baay Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Maam Baay Cerno Tukulóoru Baay Cerno Alsaan waayu Baay Cerno Tukulóoru Baay waarisu Seexu Tijaan bëgg nañ la ta dootul dañ wóolu nañ la ngir Yàlla jeng saala baay jeng saala baay jeng saala baay jaarama nañ la ngir yàlla jeng saala baay jaarama allahu ya allah ala ala allah allahu ya allah ala ala allah jërëjëf Baay Ñas macha allah waxoon naa leen ko ndaanaan la ci biir ndaanaan yi gis comme gis rek eh, nu muy zikaree nga xam ne ndaanaan la comme lu duuf ci eh, nag bi xajul si cin li dañ koy daal di dagg fii rek ba beneen yoon su ko defee ñu bàyyi ko mu tàggatoo kenn Kenzo bu bàyyi lay tàggatoo. <laughs> waaw macha allah alhamdulilah ñuy sant yàlla beneen yoon ñu yàlla may ñu commencé ak bisimilah rahmaani rahim jeexale ak alhamdulilah rabbil alamin eh, ñu ngi wax ne. jaam yi xeebu daal ñoo fi nekkoon di takale rek su neexee xëy na si yéen la seen dégg-dégg yu rafet la waaye su amee rek rek ngeen xam ne sunu ñàkk mat la ñu ñaan yàlla may ñu eh, mahabatu se Ibrahim Niass ñaan yàlla si weeru koor bi ñu nekk yàlla nangul ñu lépp luñ ko jaamu may ñu kàttan biñ ko wooree bu mu jeex eh, te mu nangul ñu sunu koor ñu yàgg di ko teewee at yu bëri ñu ngi gërëm mbooleem xadara bi eh, pays Mawlana se Ibrahim Eh, di gërëm khalifa bi eh, papa may di ko ñaanal yalla yalla dëgëral taxawayam ak mboolem rakam ak eh, imam Cheikh Tidiane Alioune Cissé ak représentant khalifa bi fils Dakar mi Cheikh mohammed Lamine ñu ngi koy ñaanal yalla wakilul dadi mm. yalla yalla guddal fanam may ko wër di ñaanal mbooleem njabootu Mawlana Cheikh Ibrahim yaakaar naa suñu limee dañuy joom mm. porte parole bi Cheikh Maay Alioune Cissé mom ñu ngi koy ñaanal yalla bu baax mm. di gërëm bramien TV Eh, di ñaan yàlla yàlla def ko mu nekk télé bu gën a mag si àdduna bi yàlla mën na ko waaye eh, ñu ay ndaw yoo xam ne ñu ngi góor góorgóorlu eh, taxawal li nga xam ne moom mooy Baramene TV ñu ngi woo mboolem mbokk taale bi mboolem pay bi ñu ñëw ñu teg si loxo jàppale leen. ndax mun naa ne bërigo si mbartal la ku si jàpp dina dem ku si jàppul dina dem kon ñëw leen ñu teel a jàpp su ko defee bu réussir nekk suñu réussir ñun ñëpp. ñu ngi ñaanal yàlla ñëpp di la gërëm yow di la yàlla. Mm. Eh, yàlla gën a dëgëral taxawaay bi macha allah eh, kontaan nañ bu baax a baax. ñu nuyu aussi suñu sëriñ Baye moo Gueye ñu nuyu suñu yaay suñu papa ñu ñëpp ñu ngi ñuy seetaan. ñu ngi eh, leen ñaanal yàlla yàlla gën a guddal seen fan. bañ fekkee njëriñu njaboot gi. di nuyu ñëpp soxna yeeg. waaw waajur yeeg doom yeeg ñëpp ñu ngi leen nuyu duñ leen fàtte macha allah jërëjëf leen dokkeel bu baax a baax di la jaajëfal ci nangu bi nga nangu ñu invité la def si sa yitte ñëw ba fii nii ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. di wax ne peccum liir bu neexee nday jaatee sa mbagg ya tey jii suñu jàkkaarloog yéen di wax wax ji di leer eh, écran bi di leer du ñenn ñu dul suñu équipe technique yi bar eh, mooy Baye Omar Baye Bokar Jeyda Fatima ak Baye Keps ñoom ñoo nekkoon ci taxawaay bi ñoom ñoo nekkoon ci équipe bi. Eh, pour bëgg jaar lépp jaar yoon ñu ngi leen di ndokkeel bu baax a baax di leen ñaanal yàlla di leen jëfal ki nekkoon ci kàddu gi Awa Camara bu Baye Medoune di leen jox rendez ba beneen yoon incha allah.